dem xalif général des Mourides altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër sëriñ bi jàkkaarloo ak juma Touba asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokku jullit yi mbokku taalibé yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu sëriñ Cheikh Amadou Mbàkke xalifa sëriñ Abdoul Xaadir Mbàkke ak mboolem jabootuk sëriñ Abdoul Xaadir sëriñ Moustapha Abdoul Xaadir Mbàkke jëwriñu sëriñ Cheikh Mbàkke Abdoul Xaadir sëriñ Sidi Mbàkke Abdoul Xaadir njiitu comité d'organisation màggaluk sëriñ Abdoul Khadr Mbacke ak mboolem jabootug Serigne Abdoul Khadr Mbacke ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggalug Serigne Abdoul Khadr Mbacke gi ñuy amal altine benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër Serigne Abdoul Khadr Mbacke jàkkarloo ak Juma Touba muy bésub sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imam yi quatrième xalif général des Mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub nangu ñaan ni ko Serigne Moustapha Abdoul Khadr Mbacke di waxee at mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal dundal diine l'islam daan dund di dundal sunna dundam yépp di jaamu yàlla muy sëriñ Abdou Khadr Mbacke ibnu Cheikhul Khadim quatrième xalif général des Mourides ñu ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan yi juma yi jàkka yi ak mboolem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida ak salaatu ala nabi ñu def ko addiya sëriñ bi programme bi ren ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet nu amal ab table ronde 17 heures ci kër sëriñ Fallou Mbacké xalifa sëriñ Oumar Mbacké 23 juillet 2022 17 heures ab table ronde ci kër sëriñ Fallou Lo xalifa sëriñ Makhtar Binta Lo ci Touba Soura le 25 juillet 17 heures ab table ronde ci kër sëriñ Sidi Mbacké Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau spécial ca kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak juma ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr ak mboolem membre comité d'organisation maggal gi ñu koy amal en direct TFM Touba TV ak Sen TV ñu di ko yëgal njabootuk Serigne Touba gépp Mbacké Mbusoobe mboolem ñu ñu bokkal Mam Maram di ko yëgal cheikh yi taalibe yi di réew meeg bitim réew mboolem këru diine yi ci Sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak Serigne bi bés bangoog màggal annuel Serigne Abdoul Khadr Mbacké quatrième xalif général des Mourides altine benn fan ci weeru ca kër sëriñ bi jàkkaarloo ak juma Touba asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dir sang bi laa bëgg a way man dong bi mbokk jullit yi mbokk taalibé yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla fi yàgg loolu te ànd ak wér ci kilifteefu sëriñ Cheikh Amadou Mbacké xalifa sëriñ Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabootuk sëriñ Abdoul Khadir sëriñ Moustapha Abdoul Khadir Mbacké jawriñu sëriñ Cheikh Mbacké Abdoul Khadir sëriñ Sidi Mbacké Abdoul Khadir jiitu comité d'organisation màggaluk sëriñ Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabootuk sëriñ Abdoul Khadir Mbacké ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggaluk Serigne Abdoul Khadr Mbacke gi ñuy amal altine benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër Serigne Abdoul Khadr Mbacke jàkkarloo ak juma Touba muy bésub sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imam yi quatrième xalif général des Mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub nangu ñaan ni ko Serigne Moustapha Abdoul Khadr Mbacke di waxee ak mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal diine l'islam daan dund di dundal sunna dundam yépp mu yàlla muy Serigne Abdou Khadr Mbacké ibnu Cheikhul Khadim quatrième xalif général des Mourides ñu ñaan kuréelu xasida yi daara juma yi jàkka yi ak mbooleem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida ak salaatu ala nabi ñu def ko addiya sëriñ bi programme bi ren ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet dinañu amal ab table ronde 17h ci kër sëriñ Fallou Mbacké xalifa sëriñ Oumar Mbacké 23 juillet 2022 17h ab table ronde ci kër sëriñ Fallou Lo xalifa sëriñ Makhtar Binta Lo ca Touba Soura le 25 juillet 17h ab table ronde ci kër sëriñ Sidi Mbacké Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau spécial ci kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak juma ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr ak mboolem membre comité d'organisation maggal gi ñu koy amal en direct TFM Touba TV ak seen TV ñu di ko yëgal njabootuk Serigne Touba gépp Mbacké Mbusoobe mboolem ñu ñu bokkal Mam Maram di ko yëgal cheikh yi taalibe yi di réew meeg bitim réew mboolem këru diine yi ci Sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak sëriñ bi bés bangoog màggal annuel Serigne Abdoul Khadr Mbacké quatrième xalif général des Mourides nit altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër sëriñ bi jàkkaarloo ak juma Tuuba asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ Tuuba sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des mourides yàlla na fi lool te ànd wér ci kilifteefu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa sëriñ Abdoul Khader Mbacke ak mboolem jabootuk sëriñ Abdoul Khader sëriñ Moustapha Abdoul Khader Mbacke jëwriñu sëriñ Cheikh Mbacke Abdoul Khader sëriñ Sidi Mbacke Abdoul Khader njiitu comité d'organisation màggaluk sëriñ Abdoul Khader Mbacke ak mboolem jabootuk sëriñ Abdoul Khader Mbacke ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggaluk sëriñ Abdoul Khader Mbacke gi ñuy amal altine benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër sëriñ Abdoul Khader Mbacke jàkkarloo ak juma Touba di murit muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub nangu ñaan ni ko sëriñ Moustapha Abdoul Khadr Mbacke di waxee at mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal diine lislaam daan dund muy sëriñ Abdoul Khadr Cheikh quatrième xalifa ñu ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan jumaa yi jàkka yi ak mbooleem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida ak salaatu ala nabi ñu def ko addiya sëriñ bi programme bi ren ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet dinañu amal ab table ronde 17 heures ca kër sëriñ Fallou Mbacké xalifa sëriñ Omar Mbacké 23 juillet 2022 17 heures ab table ronde ca kër sëriñ Fallou Lo xalifa sëriñ Makhtar Binta Lo ca Touba Soura le 25 juillet 17 heures ab table ronde ca kër sëriñ Sidi Mbacké Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau spécial spécial ci kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak jumaa ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr ak mboolem membre comité d'organisation màggal gi ñu koy amal en direct Touba TV ak seen tv njabootuk Serigne Touba jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak sëriñ bi bés bangoog magal annuel sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke quatrième xalif général des Mourides altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër sëriñ bi jàkkaarloo ak juma Touba asalaamu général sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Moustapha Abdul Xaadir Mbacke jëwriñu sëriñ Cheikh Mbacke Abdul Xaadir sëriñ Sidi Mbacke Abdul Xaadir njiitu comité d' organisation màggaluk sëriñ Abdul Xaadir Mbacke ak mboolem jabootuk sëriñ Abdul Xaadir Mbacke ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggaluk sëriñ ñaanal su xéewal di bésub nangu ñaan ni ko sëriñ Moustapha Abdoul Khadr Mbacke di waxee at mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal diine lislaam daan dund di dundal sunna dundal dinañu amal ab table ronde 17h ca kër Serigne Fallou Mbacké xalifa Serigne Oumar Mbacké 23 juillet 2022 17h ab table ronde ca kër Serigne Fallou Lo xalifa Serigne Makhtar Binta Lo ca Touba Soura le 25 juillet 17h ab table ronde kër Serigne gi TFM Touba TV ak Sen TV ñu di ko yëgal njabootuk Serigne Touba gépp Mbàkke Mbusoobe mboolem ñi ñu bokkal Mam Maram di ko yëgal cheikh yi taalibe yi di réew meeg bitim réew mboolem këru diine yi ci Sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon laa bëgg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 muy bésub sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imam yi quatrième xalif général des mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub nangu ñaan ni ko sëriñ Moustapha Abdoul Khadr Mbacke di waxee at mu nekk nañu chargé waat sunu batterie mboolem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida ak salaatu ala bi ñu def ko addiya sëriñ bi programme bi ren ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet dinañu amal ab table ronde 17 heures ca kër sëriñ Fallou Mbacké xalifa sëriñ Oumar Mbacké spécial ci kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak juma ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr ak mboolem membre comité d'organisation màggal gi ñu koy amal en direct TFM Touba TV ak Sen TV ñu di ko yëgal njabootu Serigne Touba benn fan ci weeru août 2022 ca kër Serigne bi jàkkaarloo ak juma Touba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacke Abdou Khadr Mbacké ak mboolem jabootug Serigne Abdou Khadr Mbacké ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggalug Serigne Abdou Khadr mbakke gi ñuy amal altine benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër Serigne Abdou Khadr Mbacké jàkkarloo ak juma Touba imaamu imaam di waxee muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal diine lislaam daan dund di dundal sunna dundam yépp di jaamu yàlla muy sëriñ abdou xadr mbàkke ibnu cheikhul xadim quatrième xalif général des mourides ñu ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan yi jumaa yi juillet 2022 17h ab table ronde ca kër Serigne Fallou Lo xalifa Serigne Makhtar Binta Lo ca Touba Soura le 25 juillet 17h ab table ronde ca kër Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau spécial àddina allahu rabbul alamin laay tàmbale man mat lamin julli ci xayril alamin tey tagg ngeen julli ci xëy lu néew lu tuut lu ma xam xawma azak azakaam yàlla xamoon rek mu doon danaa la wax fonk sunaam li tax mu doon ji imaam danaa la xanaa la wax subaam ba ngoon Cheikh Abdou Khader sang bi laa bëgg way man dong bi ndax xaaju kaw bu jëkk ba daa am lu tuur lu jukkul woon ngir ñëpp daal lay bàyyi xel tey daal di fii sa xol laaj la ba laaj la say cosaan kooku diwa moo ana diw nga daa di jaaxle naa ko diw mu daal lay gàgganti yow addina moom fële ñu naa daarul alim moom la wala fii woowe ndaam Cheikh Abdourahman ma fa waan muy ñetti fan ciw tam xarit sëriñ bu mag bi sama Yàlla yónni nga tudd gan gi sa wi na gudd ngir loo dajeel duñ ko tudd yowmal xiyaam du gis safaan ku gane addinay ramu wax du ko ba tàkku ci ñaan lii tax ku juddu seeti ko ku faatu it nu woowi ko bàmbaa ko wax nu topp ko ngir kum jullee nga dem jinaan lii tax ku juddu seeti ko ku faatu añ na suuf sa ceer na aw bam koy tudd nit ku fa aw danañ la jéggal kon ku ñëw ci màggalam gi dem ji naan yàlla raw ci ak dundam sàkku ko doom ngir jëmm mu aw fuñ la seen daañ la fa seen yeneen ba dem nay ati at Seex Bamba feeñ ni ko tewit di tagg rek noor ak baraw bu seyru ak asaan Seex Abdu du keneen maamalatu naasi nag li mu ci def moom lépp a jag mësul di sàkkal kenn dëj mësul di yéene ab safaan lee tax ñu ci yoon wi la mooy jaamu yàlla jëfu yiw kon fuñ ko seen daañ la fa seen maamalatu naa si nag li mu ci def nag lépp a jag mësul di sàkkal kenn dig sëriñ bi nee mi ngi leen mi ngi lay sant bu baax. di la gërëm itam. mi ngi itam président. nee na mi ngi nuyu danañ ko fas yoo xam ne te seen du booy incha allah. nee na ñaan googu nga xam ne sàkku nga ko. ci turu réew mi ak borom réew mi. def na ko aw sasam woo xam ne fas yéene du booy. incha allah incha allah. li ci taalib yi sallallahu alayhi wa sallam tey wattandiku ak tooñ te sax ci ak jub te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ñi ñi ñi te suñ suñ diine ci réew ngeen ànd ci ñoom nee digal na leen itam lépp loo xam ne soxla nañu ko te nga xam ne suñ diine terewu ko ngeen ànd ci ak ñoom du ko yow ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal te jiite leen ñaan yooyu nga wax ni itam moom moom nga ñu def ko ñaan googu itam xam ne ko seen yoon du booy incha allah nee ñaan googu nga xam ne sàkku nga ko ci turu réew mi moom la leen di dénk ba tey. moo di ñu sax ci jaamu yàlla. moo di ñu sax ci jaamu yàlla. ci sunna ci sunna. si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tey wattandiku ak tooñ. tey wattandiku ak tooñ. seen kilifa itam. waaw ñoom. ngeen defal ñoom mudaara ba ca gën ba gën a rafet. waaw lépp loo xam ne luñ soxla lañ loo xam ne soxla lañ ko. te suñ suñ diine ci réew ko ñun ak ñeneen ànd jàng. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala wa sallama ala sayidina fii ci kër al imam al cheikh abdul qadir mbàkke ibnu cheikh al xadim radiallahu anhuma ci ndigalul sëriñ sidi muxtaar mi nga xam ne moom la doomi sëriñ tubaa ju tedd jooju ñu daje tey jii nag fii ci kër gi war fee amal jataay bu am solo boo xam ne day dugg ci biir màggal gi ndax Abdul Qadir mooy fàttaliku laabiir mooy fàttaliku ëmbal ñépp aw yiw te yëreloo kenn ab safaat jataay bi nag ñu seq moom nga xam ne benn tomb boo jël ci ak dundam rekk àdduna mën na cee defaroo yàlla dogal mu ñëw àdduna ba génn mu ëmbal ko yiw jataay boobu mbokk yi moom lañ bëgg séq ak yéen dégg ngeen léegi kàddoom yi tedd yooyu nga xam ne bokk na ci yenn ci ay jataayam yi mu mujj def ak nit ñi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moytu ak tooñ te sax ci listiqaama te sax ci ak jub waxit ne kilifay àdduna yi yàlla booleel lépp luñ soxla ci noonu te soxla nañ kàddu yi mel noonu ñu càmbar ko leeral ko nit ñi ndax ak doy na yóbbal ci ku bëgg a dem doy na waaye di siyaare alxalifatul am li tariqatil muridiya cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne lépp lu fi am ci kër gi ci ndigalam lay amee. kàddu yi waxtaan wi ñu. mi nekk ci sama. kii nga xam ne maa ko féete ndey joor di sëriñ Cham Boussa Abdourahmane moom itam way juróom sëriñ Abdourahmane Boussa li ñuy wax ci sëriñ Xasan lay wax ci moom kon ñooñu ñoo nar a seq waxtaan bi seet wax nañu ci dénkaane na ci nañu moytu tooñ dénkaale na ci nañuy mudaaraat ak kilifay àdduna yi mën nañu wax ne boo tënkoon waxtaan wi ci yooyu màgg gën cee doy waar mooy tooñ yàlla sunu borom te tooñ yàlla mooy mu def la mu digal la defoo wala mu tere la bàyyiwoo kon ku sax ci jaamu yàlla ci sunna si yonente bi mooy ta nga tooñ moo tax waxtaan wi ñu bëgg ko tënk ci tooñ lu muy wàññi bu ñuy tooñ kan lañuy ñuy tooñ ndax nit lépp lu muy def war na koo xam ngir mën caa jariñ baat bi mën naa romb nii rek ñu ne la moytu bi te moytu ak tooñ te nangoo liggéey ndax daa ko daan firi jaamu yàlla mooy taxamal jànn boo liggéey moytu tooñ mooy tax mucc fii ci àdduna nangoo liggéey mooy tax a mbokk yi ci liggéeyu xam-xam ci dëkk bi nga ne mën nañoo wax ne lépp lu ngeen di dégg ñu koy yëngu ci xam-xam ci dëkk bi ci yoon wi ñoom ñaar ñi seen loxo génn ñooy ñu am solo ñoo xam ne di ndonal njub di ndonal nangoo tegu ci yoon ak nangoo tegee ci yoon loolu moo tax sëriñ si tànn leen bëgg ñu joxe fi bind tey boo xam ne buñ fi jógee ñun ñëpp. gi sëriñ bi wax ne nañu mooy ak tooñ ginnaaw bu ñu xamee ne ñun yàlla ñu indi ci kaw suuf am lu tax mu indi ñu fi saa bu ñu wàccee loola kon ñu ci tooñ. kon boo waxtaanee moytu ak tooñ waxtaane nga sax ci ak njub kooral mooy jaamu yàlla bu tegul ci sunna amul njëriñ dañuy wax ne yàlla boo ko jaamuwul yéefar nga boo ko jaamoo tegu ko ci sunna toppkatu bidaa nga te ñaar yooyu benn amu ci njëriñ moytu loo mooy lan dëgg-dëgg aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri na de wahlul uqdatan min yaf ka mi nga xam ne nii mu jot li ñu ko mbooleem ñi nga xam ñoo war a jot ci nuyo bi di nuyu sëñ Saam mi nga xam moom lañ jot moom lañ bokkal jotaay bi di ko rafetlu bu baax a baax di rafetlu ni nga laytaaye waxtaan wi xam naa bu ñu doon njëkk a waxtaan li ñuy waxtaan fees dell ak maana ba noppi leer nañ loolu nag day wuute lool ak léeg-léegi discours yi nga xam moom ngay faral dégg suñu jamono ji nga xam discours bi dana gudd lool te la cay leer du bari te it maanaam dana léeg sax nit ki koy déglu biñ ko xaymaa ci jumtukaay yu xarala yi gis ne discours bi ñaari minutes ak fanweeri seconde ak ñeent moom la diire discours bi lu mu lépp ëppul ñaari minutes ak fanweeri seconde ak ñeent te moo waxtaan na ci gan ñi moo yor dunduk at ko yoo xam ne nii yomb naa mokkal lool fi mu ne ku ko dégg rek ci saasa mën nga ko daal di mokkal te doo ci am benn baat booy laaj lu muy tekki day lépp day leer sa bopp loolu nag mënuñu tudde jawaamilul kalim te moom mooy li yàlla mayoon nag sunu mag ñi nga xam ñoom la ñuy faral di fàttaliku. lan mooy jaamu yàlla ndax fi mu nekk nii ñu baree bari ñun jàpp nañu boo leen woon lan mooy jaamu yàlla dañu jàpp ne mooy julleeg woor ak juróomi ponk yooyu ñu xam rek bu ñu ko defee ñoom jaamu nañu yàlla jeex na te fekk na jaamu yàlla moo gën a yaatu loolu fuuf sax. xëy sax na jàpp mi ngi ci jaamu yàlla kon lépp looy def ci lu baax ba ci docteur bi nekk ci biiróom di faj sax te ca di ca sellal di ca sàmmonteeg ndigali sunu borom yeeg la muy aaye na jàpp ne ci jaamu yàlla kon jëpp jëf joo xam nit daf koy def te muy jëf ju baax joo mën naa jari nit ñi ne mbir li ci gën mooy la sax donte lu néew la nag moo tax nit li ngay def tey bu subaa doo ko def gannaaw suba doo ko defaat yu mel noonu loolu amul solo kon li ngay def ci lu baax lu mu néew néew fexeel ba mu sax loolu itam defe ne sax gi ci jaamu yàlla andi na ko waaye itam ni nga ko waxee léegi nañuy jaamu yàlla teg ko ci sunna yaa ngi ci ñoom de ndax fan yi da ngay dégg naan ñun xuraan la ñuy tënku tënkuñ ci xadis wala mel noonu ko dégg naan julli ñaar rakkaa rek la wala yu mel noonu ñu ko dégg léegi muy bari léegi dégg ñu naan war nañoo mën a julli ci wolof war nañoo mën a julli ci séeréer ak yu mel noonu yooyu ay fent yu bees yoo xam ne nii boo ko indee yaa ngi maanaam yax bu wér kon nga gis ne ñaar yooyu ma di fàttali nit ñi sax ci njub defe naa ne moom jarul guddal lool li ci nekk am ñëpp xam nañ kon discours bi li gàtt gàtt liy defar dund nit ci àdduna ak sëñ bi tënk na ko. dañoo toll jamono joo xam ne nii xeeti tooñ yi tasaaroo dafa bari daanaka tooñ gi moo ëpp doole léegi li tegu ci yoon li tegu ci tooñ léegi moo ëpp doole li tegu ci yoon mu tasaaroo lool am façon yu bari nag yoo xam nit ñi sax duñ ci bàyyi xel am na tooñ goo xam da koy exploité du la fay lam la war a fay du la ko fay bis la ko war a fayee du mat bu la koy fay du mat tey doo fa dégg lu neex du la jëflante gu jëflante gu teg ci nit loolu di tooñ koo xam ne ni dafay jóge ci diggante nit ñi dañ koy dund bisu set xam yee xel am na tooñ koo xam ne dafay jóge ci kilifteef yow dañ laa jox kilifteef ba noppi nga wër bëtiku di jëfandikoo kilifteef googu ci loo xam ne dafay lor ña nga yilif loolu tam muy lu tasaaroo ci suñu biir ñu ko gis ñox ñox la tegu yow man na lu ma gëm nga am loo gëm ma lay xeebal li nga gëm di la ko sabooteel di la wane dara loolu ak tooñ la ndax ku nekk am nga sañ sañu gëm li nga bëgg gëm keneen ko gëm li mu bëgg gëm yow nagal ci li nga gëm te bàyyi ko moom muy dund lam gëm loolu tam defe naa ne tooñ la goo xam ne nii mi ngi dox suñu biir xeebal na ci wax réew yi ci àdduna bi tey fi mu ne gis nga réew yu àddina bi ci réew yu mag yi ni ñuy jalgate réew yu ndaw yi te di leen tooñ tooñ gu mat sëkk goo xam ñëpp dañu ci teg seen bët boo xoolee tey la xaw ci diggante Russie ak nga gis maanaam xëy xëy dal ci réew maanaam nar koo faagaagal te yemut fa tàmbalewut foofu biir réew yooyu moo tax dafay mel na ñun sunuy relation yi léegi ëpp doole sa morom man ko rek la bu ko defee ñi am doole di dund ci kaw ñu néew doole ndax rek dañoo néew doole loolu nag mooy tooñ bi ci ci ci dëgg-dëgg maanaam kon tooñ dafa bari ay maanaam yoo xam ne xëy na buñ ci gën a ñëw dina gën mooy nga lépp loo jalgati jéggi dëgg dem ci neen loolu ak tooñ la gépp soppaxandiku goo soppaxandiku ci loo xam ne ni moomoo ko te ka ko moom soppaxandiku woo ci teeyu bakkanam jàppal ne loolu ak tooñ la loolu la nag léegi xam da nga ko loolu lu mu ci mën doon boo ko tegee fu du yaa ngi tooñ moo tax boo yéegalee nit ki te a yéeg yaa ngi tooñ boo wàccee nit ki war a wàcc yaa ngi tooñ su fekkente ne da diggee dara tam ci waxtu sàngam laa ko a def ne tooñ am nay fa tooñ gi ci boppam li ma waxoon léegi tooñ gu teg ci wàllu koom-koom tooñ gu teg ci kilifteef tooñ gu togg ci pas-pas ak yu mel ci xeet yi la bokk waaye itam wet gi muy jëm danañ ko ci séddale am na tooñ goo xam ne nii ci nit ki mooy tooñ boppam ak tooñ goo xam nit ki dafa koy tooñ yàlla xam ne kon yaa ngi tooñ sa bopp képp koo xam ne yaa ngi wax loo xam ne nii xamoo ko yaa ngi tooñ sa bopp képp koo xam ne nangu méngoo liggéey boo xam ne leeral leen liggéey boobu ko yaa ngi sa bopp képp koo xam ngi dugal sa bopp loo xam sa yoon mënul lu mu ci mën doon la cay wëlbatikoo daanu sa kaw bu ca yedd kenn ndax yaa ko teg sa bopp loolu tooñ sa bopp la léeg-léeg nit dana tooñ moroomu doomu adama ci lu mel ni nga jalgati ak xam ci loo xam daf koy lor wala nga jël alalam ci loo xam du teeg bakkanam nit neexu rek nga dóor bal mu faatu wala nga jam paaka mu faatu wala nga wala yu mel noonu nga rey ko rey googu ngay rey tooñ féetewu kaw rey bakkan boo xam ne nii amoo sañ ci walla ñu dénk la mbir te na ko war a sàmme kóolute ga nangam ndax la nga la nga digge woon ak nit ñi defoo kon warteef yi bu fekkente ne yaa ngi jot say àq te defoo say warteef jàppal na yaa ngi ci ak tooñ nit tam dana tooñ boroomam subhaanahu wa mooy kéefër wedd yàlla suñ fadil imaam ñoo ngi ci léegi bu fekkente ne dangaa wedd ko keneen ci xeeti jaamu yàlla yi ba tey ak tooñ la kon yooyu yëpp xeeti tooñ la yoo xam dana ñëw nit dana ko def nit dana tooñ boppam dana tooñ moroomam waaye itam dana tooñ yàlla tooñ googu nag di nit def boppam wala mu koy def moroomam wala mu koy def yàlla dafa fés te ñëpp jàpp seeni loxo kenn waxu ca ci lu koy delloo gannaaw bu yàlla bu yàggee yàlla man naa wàccee mbugal moo xam ne nii même ña tooñu toon sax da leen di laalaale moo tax suñu borom wax ne bari na dëkk yoo xam ne nii yoo xam dama leen alak ndax ña fa nekkoon dañ doon doole di rot di not nit ñi néew doole loolu muy tooñ gu tasaaroo goo xam mën naa am musiba ak balaa yi wàcc xeeti wérad yi yéeg xeeti mbas yi xeeti maanaam ngelaw yu mag yeeg xeeti daay yi tàkk kenn du xam lu ko taal ak yooyu yëpp mën naa am musiba ak balaa yoo xam dañuy jàpp ne bu la ñaanee yàlla yàlla dana ngu ñaan googu teg ko ci sa kaw kon tooñ googu tam mën na laa indi rëbb nga nekk ci rëbbum suñu borom ndax léeg-léegi nit bu fekkee day tooñ dana nekk ci rëbb rëbbum suñu borom nag war ayaasu billaah defe naa ne lu ñu xam la siraatal mustaqim yoonu njub du ma ko gindi du ko teg ci yoonu njub kon nekk ci tooñ dana tax dootoo mën a tegu ci yoonu njub te sëñ bi jàngale woon na ngeen sax ci ak njub loolu ñëwoon na ci biir tooñ loolu kon ay mbir la yoo xam day dellu ci nit ki waaye itam biir askan wi dañuy gis ne ñàkk dal gi am ci de yenn dañu agressé seen kaw di jalgati seeni alal tey bari na koo gis mu nekk agresseur di dog ci mbedd mi di ku ko romb mu dogale la mën na laa rey ngir nangu la ko yor dañ koo tooñ ay waajuróom a ko ndax ba mu ñu war koo teg ci woyoon dañ koo kon tooñ dana indi ñàkk dal ci dëkk cim réew waaye tam dana indi manque de sécurité cim réew te loolu wax nañ ko ay yoon yoon jàng nañ ci histoire ñu ne kat nguur mën naa yàgg lool te tegu ci kéefër mën ngaa gis nguur goo xam ne ci biir kii tooñ itam nit ki bu fekkee da ngay tooñ léeg-léegi mën naa nekk dugg ci situation di ko yàq man ngaa gis koo xam ne nii day xëy xëy gis liggéeyam di yàqu maanaam mu doon lam doon am mënatu ko am ay gàllankoor yu baree bari di moo tax mënut am tawfeex ci la muy def moo tax léeg-léegi bu fekkee da ngaa nekk situation bu baax ba mu yàgg ngay gis ne sa situation day gën di soppi ko rek di gën di ñagas xoolaatal yow ni ngay dunde xoolaatas bala ngaa tuumaal kenn xoolal ni ngay dunde boo xoolee yoo xam ne ni dana ci ñëw léegi nag mu des kon sëñ bi def ne na ngeen moytu ak tooñ tooñ nag dafa bari façon yu ñu jaar ngir mën koo moytu ci misaal tey dañuy joxe misaal la léegi ne benn dërëm boo jël def ko ci fegu dërëm foofu dërëm moo fi yàpp xiimal moo tax ñu nekkoon kon fegu moo gën faju ci problème yi ñuy dund nag ci biir askan wi muy ay jafe-jafe yoo xam ne dañ koy dund ci biir askan muy yàq-yàq yu jikko yi maanaam soppi ko jikko yi wala boog jafe-jafe jikko yi dañu sax yàq-yàq yu jikko waaye bu xasee sax ci nit wala mu xas sax ci mbooloo dindi ko dana jafe lool léeg-léeg sax dañaan kenn du ko mën a dindi moo tax léegi ñu ci wolof da dégg ñu naan jikkoog borom ba gas suul loolu nag wérut maanaam wax jooju nag wérut moom waaye dana naan dundin askan at yi toll noonu wala lu ko ci misaal tey li nga dund ba am juróom fukki at muy ay jikko dañu wax ne boo ko bëggoon soppi mën naa jalaat juróom fukki at wala lu këpp door a dañ ci yow bu ko defee léegi néewaan na gis ku guy gu dun ko ñu ne jikko jikko ji daal nit ñi ci tooñ moo gën ñu bàyyi ba tooñ tasaaro ñu ne dañuy fajtal tooñ moo tax kon ton ñu ngi koy tàmbalee ci yar xale bu juddoo nekk tu tànk ci lañ koy teel a jàngal xamal ko ko seetaan fexeel ba ki jalgati ak moroom ñu nga teel koo xamal ne ko waroo jalgati ak kii li muy tuut tuuti donte nag ku nekk ak nag maanaam période bi mu toll ci dund noonu la ñuy jëflante moom kon nañ teel yar xale bi mu xam ne jalgati aqi moroomam du yoon léeg-léegi moroomam man xale bi li muy tëdd ak maandu waaye itam yar leen ci seen bopp neex leen ndax bari na kuy tooñ koo xam ne nii bopp ma ko xul su fekkente ne man ci misaal tey dama liggéey liggéey yàlla def na xëy na damaa wërta am ay milliards maanaam mu neex la fekk la ci tooñ loolu lu ci am solo la waaye itam ki tooñ ñu jox ko fayuk maanaam fa li li mu ci bu fekkee dañ ko teg donte nag war nañ caa mën a sàmmonteeg xale bi fi mu fekk mu xam ndekete tooñ kat du aw yoon wëtt am bu ko defee moom dañ ko ko mën a fegal beneen bi ci bokk mu bokk topp mooy li ñuy fayantoo nu fexe ba ku nekk ci ñun gëm-gëmu fayantoo nga fexe ba kuy tooñ du euh, gëm-gëmu fayu ñu génne ko ci sunu biir wàññi ko dana tax tooñ gi di ñu mën koo fegu moo tax ñun ci wolof dañuy wax naan man ku ma wokk ma xuri la ku ma wokk ma xuri la ma tooñ féetu kaw moom ndax wokk loxo koy def waaye xuri moom dafay indi alxuraan li mu jàngale mooy bu fekkente nit dafa jalgati sàq te mënoo koo baal def ko lu tel na lim la def te yam ci waaye nag amoo sañ-sañu nit wokk la nga xori ko boobaa yow da ngaa far tooñ moo tax même lu waaye ñi xam ñun te sax tëguwut ci yoon. suñu tontu moo tax dañuy wax ne maanaam li ñuy wax xajoo tolerance mooy li gën a kawe ci force doomu aadama mooy ku am tolérance tolérance mooy force bi gën a kawe ci doomu aadama waaye nag bëgg ko mooy premier signe de faiblesse buy feeñ ci nit mooy nit ci lu waaw boo la nga nga def lu toll noonu la def waaye weesu bu dee ci suñu luwaay bopp yi ñuy tëral nag nga xam ñoo ko doon boppam dañ naan la bu ñu la looñee waroo fayu dangaa war a dem ci yoon mu àtte kooku kon loolu bu ñu fexe ba ba mu leer ci bopp nit ñu dana tax ñu mën leen a fekk ci tooñ waaye tam appliqué luwaa nag ñi nga xam ñoom lañ diine la noo mën ci lañ la war a teg ci teg loola ñu teg la ko dana tax bu ëllëgee ku la gis dootu ñemee tooñ defe naa loolu am solo la ci tooñ kon dafa mel ne sëñ bi euh, diskuur bu am solo ngi ni matul ñetti minutes waaye liñ ci déggee bari na lool ci luy defar dundu doomu aadama mënuñu tooñ mi ngi fiy tasaaroo ak dal mënu fi am sécurité man li fekk tooñ mi ngi fiy tasaaroo moo tax dañuy def appel boog dañuy def woote jëmale ci mboolem ñi nga xam ni ñuy topp ñoo xam ay kilifa lañ ñoo xam dañu ne yilif waaye daal ñu jàng te yow ay nit ñoo dajaloo ku nekk jox ci àqam ak yelleefam jox la ko ne la dénk nañ la ko defal na ci nangam ak nangam nga bëlbëtti ko jëfandikoo doole jooje di tooñ nit ñi loolu moom mooy tooñ gi gën a metti ci àdduna bi te muy tooñ ko yu baree bari mi ngi am ci biir mbooloo ci loolu moo ko indi loolu fu mu am te nit ñi waxuñu ci ña ca war a waxuñu te kenn waxtaanu ci bu yàggee nit ñi dañu révolté te bu ñu xasee révolté nag moom bul xam fu muy yem kon xeeti tooñ yooyu def naa ne fàttali lool yaru lool am xel lool mën a jàng lool biir classe bi daana kenn mënu ko ci benn bis nag jàngale ko tam ñëw dóor ko dóor yu metti lool te teg ko fenn te xale bi xamul lu mu koy dóor ndax moom deful lu koy dóor jamono nag ba biñ ko jiitalee nag mu woo jàngalekat boobee ko dóoroon def ko conseil technique am numéro di diisoog moom ci lu baree bari benn bis nag ñu toog ñoom ñaar di waxtaan xale bi daal koy fàtt nga yoon bi nga jaar ëllëg da nekk nit ku mag a mag ci biir mbooloo mi moo taxoon ma bëggoon laa ñamal naqaru tooñ bu bés bi la jiitalee doo tooñ kenn defe naa ne loolu lu réyang ci biir jàngakale bi li mu def mën nañ ci jànge lu baree bari waaye bi li mu def mënees na ci jànge lu baree bari maa ngi jéggul nga ñu ndekete kàdduy nit ku baax nitu yàlla day wuute lool ak kàddu keneen maanaam li ngeen leeral fi lépp waxoon na ne dañ ma jox jawaami alkali kon mel na ne moom donn na sangam booba ci yooyu waxak ak ci lu gàtt loo xam ne ku lu sam xel naqari naqari ni nga ko waxee mën na koo mokkal jeex itam balaa yu bari ak musiba yuy xew nii ci àdduna tooñ moo ko waral loolu eh, shaairul muridiyya waxoon na ko sëriñ Moussa Ka wax ne musiba yeeg balaa yi luñ léegi mbir furul barabam tooñ ga joxe ci yu leer yu am solo yu ma tam bàyyi xel nit soo ko yéegee ba àggale ko foo xam ne ne yaa ngi tooñ waaye soo ko wàccee foo xam ne weesu na foofa loolu nag ku ñetti xaaj yi mu ko xaaj nit dana tooñ boppam dana tooñ boroomam dana tooñ ay moroomam tooñ gi dana jëm ci alal dana jëm ci nit ñi dana jëm ci nguur yi dana jëm ci fu ne waaye mu wax yu am solo ci jeexee gën fegoo gën faju ndax li na ci faju lu lu yàgg la te mën naa fekk mu yàq ba noppi sax kon ni mu waxee ne suñ bëggee mucc ak tooñ nañ fexe ba tooñ bañ a ko ci yar nit in man shabba ala shay'in shabba alayhi kon fexeel bu mu ab sawar ak tooñ su ko tàmmee da cey wéy kon wane na lan bañ a am bokk na ci yar nit ñi ci teel leen a xamal tooñ baaxut waaye ku tooñit nag ñu teel ko saafara saafara su tolloog tooñ ga ndax léeg-léeg tooñ la it nga fay bo ba tooñ ñaar bi wax lu am solo la ci ne di jéggale ko jëllale mooy kattan dëgg ci nit matu matuk nit dëgg-dëgg foofu lay feeñe gis ngeen sunu sëriñ radiyallahu anhu tooñee sut nit tooñ ku gën a rëy tooñ guñ ko tooñ jële ko ci biiri njabootam sañ nga ko de waje sa u sañ etin sañ atu mithluha waaye foo man afa waasulaha moo ëpp njariñ noonu la ko suñu borom kon di mën a bale du tooñ na te koo nga leeral ñu ci biir waxi sëriñ Abdou Khadir dégg nañ ci mu wax mu daaraat mu daaraat dëgg dëgg sëriñ sax mooy lan nuñ koy dafe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 asalaamualeykum leen di nuyu di leen ziyaare di teg nuyoo bi ak ziyaare bi ci loxol sëriñ siidi Moxtaar mi nga xam ne mi ngi toog ci jotaay bi di ko jëmmal wa di sant bu baax suñu boroom ci bokkaat ci jotaay bu màgg bii di jotaay boo xam ne dañ koy waajale bisub moom lañ ci lañ bëgg a taxaw ci waxi Cheikh Abdoul Khadir ju fees dell sëriñ Fallou wax na ko sëriñ Bakk Abdourahmane wax na ko Cheikh Abdoul Khadir dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy baat yu gàtt fees dell ak ay maana loolu waxi sëriñ Abdou Khadir yépp noonu la meloon waxam daawul gudd waaye danaan fees dell wax ci lañ bëgg a tax te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mbiri àdduna yi ngeen di modaarante ak ñoom te lépp loo xam ne soxla nan ko te seen diine tere ak lim war a ak niti nguur ab jullit te bala ñoo ñëw ci mudaarante ji ndax baat yi baat bu ci nekk dafa fees dell ak i maana maanaam amul benn baat boo xam ne pouvoir mooy lan fi ne feeñ na ci wax ji lim jiital ne te ngeen xam ne ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mbiri àdduna yi xam mooy sañ-sañ gu nit ki yor ngir mën a dogal ngir mën a jaarale nit ñi ci aw yoon ngir mën a tere ngir mën a digle muy ay sañ-sañ yoo xam ne li ñëpp nga xam ne nit ñi ñoo maase ñépp fal la muy jox la mandat muy ñoom daal ñoo bàyyi ni ko sëñ Fall waxoon ñoo am seeni liberté leen bàyyi woon rek amul benn pouvoir bu nekk wala benn autorité bu taxaw kon day mel ni ku man sa borom duma lay doon kon ñu wax ne dunduk doomu aadama ki munta ñàkk kilifteef googu ñu koy wax nguur nga xam ne kay mboole politik dañuy ñu jox la sañ-sañ nga am ab sañ-sañ ci biir sañ-sañ bu yaatu waaye buñ ñëwee ci waxi si Abdul Xaadir dañ ci dégg ne moom weesu na gis-gis bu gàtt boobu nga xam dangay ngay jàpp ne nit ñi ñoo la fal yeneen yoon waaye dogal ba ci loxol suñ boroom la nekk moo tax mu wax ne ñi yàlla dénk kon ba ca njëkk mooy ci natiiru nguur ci gisiinu lislaam gisiinu borom pas-pas mooy yàlla pour nit ki judduwaalewu ko nit ki mayuñu ko ko saraxuñ ko ko nit ku yor nguur daa wara gëm ne dañ ko ko dénk waaye dénkaan nag lan moo ciy àq dénkaan mooy génn sa kon loolu mu jiital muy baat yu gàtt ñaari mbir yooyu ngi ci mooy nguur yàllaa ko moom moo koy dénk na qul illahumma malikal mulk tuutil mulka man tasha wa tanziul mulka mimman tasha te buñ delluwaatee fàttaliku leetar ba Serigne Touba radiyallahu bindoon Samba Lawbe Njaay mi nga xam ne moo nekkoon amiru Jolof Serigne bi wax na ko ca ne ko wala bi mawt nguur gi nga yor bul fàtte mukk ne da cee jot ci ñenn ci ñi la jiitu woon ñii dañoo faatu ñii dañ leen a génne moo tax nga jot ci kon nekkoon na ci yeneen loxo def mooy faj fi ma yanfauka fi daarayni qabla xurujika min an niami wa qabla xuruji niami minka kon góor góorlul ci lu lay jariñ àdduna ak alaxira ci tooñ bi si deful lu baax it buy jóge ci sa loxo jógin wu ñaaw lay doon benn nga bàyyi ko fi yow nguur nga dem wala nguur gi rocc ci yaw ndax ndénkaan la te ngeen ndénkaan faaw mu génn sa loxo nga ko wut ci anam goo xam ne anam gu dëppoog yàlla bëgg la ndax boo gëmee ne yàlla koy joxe yow danga rafetal wutin wa ndax danga koy sabablu waaye mënoo koo sabab lu xam ne yàlla la koy jox kon danga ko rafetal kon loolu buñ ko déggoon wax jooju ñetti baat yooyu ñi yàlla dénk mbiri àdduna yi buñ ko déggoon rekk danañ noppalu ci coowul politik ndax ñi ko yor danañ ci dalal seen xel yoo xam ne man du ñàkk am na lu lay dégg loo xam ne moom dana ko yëg ñu bari doole lool waaye bañ demee ba war daanu kenn xamul la leen daane lu mu doon kon nga xam ne kon gëm ne nguur dina la wax kon moom natiiru suñu pouvoir bii mooy kon laïcité bi mi ngi feeñ koy mooy ñi yor suñuy mbir yoruñu suñu mbiri àllaaxira mbiri àdduna lañ yor kon mooy am na keneen nekk yoruñu woon mbiri àdduna kese Seydina Omar yorutoon mbiru àdduna kese waaye dafa yoroon mbiru àdduna ak mbir àllaaxira waaye biñ demee nag ba àdduna bi àgg foo xam dañ koo séparé muy laïcité kon ñoom mbiri àdduna lañ yor nekk di nguur nga war a nangu na yàllaa ko fi teg nga war a jëflanteeg moom nooy jëflanteeg moom foofu la kon ne na mu daarante ak ñoom nga gis ne avant muy wax mu daarante bi rek njàng mu xóot xóot xóot a mi ngi ci waaye daf ñuy wax ni war a nguur gu mel noonu ñaar la ci indi ba ca njëkk mooy mu daarante mudaaraante nag dafa am maanaa moo xam ne wuute nag li ñuy wax mudaahana ki nekk ci ak tooñ ngay wane ne ko tooñ gi nga nekk gërëm naa ko maanaam ànd naa ci wan ko ci ak ànd ci yow àndoo ci loolu mooy mudaahana mudaarante nag luñ digal la nit ki mu jëflente say wax ci nit ñi nooyal say wax jëflente moom jëflente ju ratax doonte sax yow mën naa am kii am na juyoo nga ak moom wala àndoo ci nu muy doxale nga mosla ak moom waxtaan ak yow nga dem kenn ku nekk kenn du xam kan lañu àndal ndax dañuy mu daaraanteeg ñëpp sëñ bu dañoo dañoo dénk kon nañuy mu daarante mu daarante nag mooy nga rafetal yow sa jëflante ak nit ki nga séqal nu mu mën a mel loolu tax euh, imaamul Qurtubi mi ngi doon leeral diggante mudaara boobu nga xam ne mooy lu ñu digle la ak wala lu ñu sob ak mudaahana bi nga xam ne moom lu bokkul li ci jikko mbirum yëpp yéwé na ci loolu mooy mudaara mu daaxana nag mooy safaan mooy bàyyi sa mbirum diine ngir rafetal sa mbirum àdduna ngir jagal sa mbirum àdduna nga xam ne yow mii lii ngay def séetoo ci sa diine donte sa diine mën na cee loroo kooku loolu mu daaxana lay doon ci sëñ bi waxoon inni laa udaahinu mushrikan moom sëñ bi mudaahana ko def mudaahana moom mooy liñ bañ ci gis nañ ne mudaarama an naas boobu nga xam ne sëriñ ab radiallahu am ku am ku yëglu am lu ca yonente wax maanaam maanaam bu doon léegi daal su ma demee subuuxun ma waa ji moom nga ku doy waar wala bi sa axul achirati na mu ko waxe woon maanaam xeet jaaxle ne ko ah waaw sang bi kii bi muy laata dugg si li nga wax ak bi mu ñëwee xam nga ñu bari nañ ci jaaxle loolu sax boo ci eh, ñi sara xadiis yi ñu ngi ciy indi wax yu baree bare ci la ñuy dem sax banaan kon ci melokaan woo xam ne melutum yow bu ñëwee nooyalal say wax sa diggante ak moom ndax yonent bi ba ko Seydina Aïcha waxee ne ko ah waaw sang bi kii li nga wax ci moom ak bi mu dugg ni nga doxaleek ak moom dane ko yaa Aïcha inna charran mel lu ñu gën a ñaawal seeni wax loolu mooy gën a yëkkat seen daraja te jafe-jafe jëg mooy àdduna moo toll foofu maanaam àdduna nit ñi lu maanaam dafa mel ne nature bu nekk ci doomu aadama nga xam ne ak mbaax ak ak ak genn ak yàlla baal ak caay-caay day amul sëriñ mën naa def ab bayaan boo xam ne day am solo lool boo ko xoolee ba ay bis bu amee mil ñu ko topp nga gis ku saaga tey nii nii nii nii balaa ngoon ñu ne la 25000 cinq nañu ko wala 100000. la ay waxam. ba nga xam ne du bokk ci fi nga xam ne fi àdduna toll kon euh, benn bu njëkk bi ñu sëriñ bi digal mooy ñu mu daaranteeg nit yi nit yi nguur yi ñu mu ñoom kon mu mooy li si lay lay moo xam ay élection la moo xam lu mu mën a jaar mu daaraat tekkiwul nag nga euh, élection yi jotee nga ne ah mu daarante naa ko woteel ndax mu daaranteeg moom loolu du mu daarante kanam gu ñëkk nit ki ñëw nga jànni ko nit ki ñëw nga bañ koo faale maanaam loolu loolu du jikko du jikko joo xam ne euh, kii euh, jikkoy jikkoy liñ digle kon boobu mooy bu njëkk bi loolu lu am solo la ñu bàyyi xel ne kon état ak nguur citoyens yi dañoo wara a jàppalanteeg ñoom ci loo xam ne intérêt nit ñi la lépp luy sàmm bakkani doomu aadama yi xol war a bu baax waaye nag lépp loo xam ne nag suñu diine comme mbiri àdduna lañ leen dénk mbiri diine yow déglu ca ka sa mbiri diine ka lay la nga war a def kon la lañ la digal su fekkee ne dafa ju lépp lu yàq jikko yi lépp loo xam ne ak tooñ la lépp loo xam ne ak jalgati la loolu waroo cee ànd ak nguur su fekkee ne sa diine dala koo tere loolu kon waxi mooy règle bi nga xam ne ñaari règle la buñ ko toppee adduna bi day jag suñu dunduk adduna day jag ndax nguur mënu fee ñàkk ñi yor nguur war nañoo dégg natiiru nguur mooy lan ca loolu mooy li sëñ bu xaalis jiital jàmm day gëna a amal waaye dimbalante ak ñoom ci gis nañ ci suñu Abdul Xaadir ci ak dundam radiyallahu anhu ku fonkoon lépp loo xam luñ tëral la ca muy maslaa am du ko mos a ñi ko xam wax nañ ne assurance bu mosaa jeex du génn oto bi du génn waaye moom da doon wan ne moom bu génnoon it xam nga kenn du ko waaye ngir rek ngir yoon liñ tëral na yoon la te muy njariñul ñëpp moom na ci tënku rek ay bind la doon joxe ne rek moom kon te mu fees dell ak njariñ baat bu ci nekk fees dell muy doon loo xam ne buñ ko toppee dañuy amal njariñ ci suñu dundu tey waaye amal ñu njariñ suñu dundu ëllëg kon yàlla nañ ko yàlla fayal te taal suñu bàkkeer te yàlla nañ ko gën a dégg yooyu uh, am na solo na leeral nga ñu tomb xam moo jëmoon ci baat am solo nga ci wax muy baat yu mën a taxaw sëriñ bi jàngale ne kon ci biir wax ji li fi nekk dend bi li fi nekk lépp yàlla ko moom lu fooy du yor ci coobare yàlla moo la ko yore waaye loolu bu nit xamee rek loo ko dénk dana ko rafetal ngir delloo ga ndax boo koy delloo lu jag la woon bañ la koy jox lu am njariñ kon boo koy delloo war naa mel noonu ci wàllu fàtte ne yàllaa koy joxe la li ñuy def ngir jot ci sabab la jaam bi li ko war mooy na sabablu bu ko yàlla dénkee nag mu xam ne responsabilité na te bu ëllëgee dana ko laaj ndax kullukum raain wa kullu raain yóbbaale ko du des ci yéen faaw ngi mu génnaat seen loxo yow mi koy wutit na nga xam ne aw yoon la am waaye yàlla koy joxe boo sabab loo boo jotee baax na boo jotul xamal lu yàlla loolu yàlla dogal Serigne Fallou ci biir gënul ci moom loolu lu am solo sëriñ Sam ni ko sëriñ bi waxee leeral ñu mu nga rafetal sa jëflante ak nit ñi nga rafetal sa jëflante ak nit ñi ndax ne ñoo xam ne seen logique mooy fayu ku ma woo ku ma xori ko maanaam ku ma tooñ ma fa ba fa ba fayu fañ fa te tegaat ci dara waaye du caa génne seen lépp bon kon ñun nattukaay bi ñu war a yor mooy diine lépp luñ woote te diine terewu ko sëriñ bi neen nañ ci ànd ak ñoom ndax day doon luy defar àdduna di doon luy amal njariñ nit ñi lu ki booy ànd ak moom it ànd ak ànd gu tegu ci ay la man daal ci réew mi laa bokk lépp luy jamale kanam réew mi sama diine terewuma ko dama cee war a ànd bu ko kilifa tooñ te kenn wërta li nii am na ñoo xam ne jàmm ciy mujj waaye moom day jàng nit koo xam ne leer na ko loolu ñu war cee jàng lu baree bari ni ko sëriñ Sam leerale muy baatum mu daaraat daal ndeke baat bu yaatu la boo xam ne ku ne ci noonu war na ko te ci kanamam saa buy jëflante keneen du koo ko mën a mel boo dee rafetal su da wax boo xam ne nit ñi danañ wax lu ñaawaay waaye yéen wax leen lu rafet yéen wax leen lu rafet kon sëriñ bi foofu la doon woote nañuy mudaaraat ak ñépp waaye kilifay yi àdduna yiit bu ñu mu daarante di wut waaye nag doo diggeeloo na rut doo ànd ci ay neen ndax loolu bokk ci mu daara doo diggeeloo na rut doo ànd ci ay neen loolu it muy lu am solo bi ci des it saabun njàng ci ak dala ngi ci nga ànd ci ak ñoom mooy ndigal li waaye bu diine àndut lor ne ca nag kenn topp la wula ko boo ko xëttee xëttoo ndigal ndax ndigalu yàlla nga topp loolu it jàpp naa ne rafetloo rek ànd ca ginnaaw sa kilifa la ci àdduna bu ko diine ñaawloo ne ko nag yàlla ma la gënal yàlla gënal la du càggee da ko noonu du càggee da ko contre loolu di kàddu yu am solo kon ñi ngi xaadir ji léegi sëñ Sam wax ko wax ju gàtt la joo xam ne ku ne ci noonu mën na ko mokkal jaada woon na saa boo xëyee déglu ko bala nga génn ba noppi nag def ko sa sa sa mu lu lay jiide loo dëgmal bàyyi ci xelam la ci wax sa morom noonu sa bopp noonu te li ñu bare bare nag nit ñi nit ñaa ngi tooñ suñu bopp ci bari bari waa na nit nu muy doye de doye de la ko boppam ak tooñ gu rëy rëy la ndax dem ba tëkkeetoo dara amatoo war ma am na solo lool kàddu gu mujj gi nag kaddu gu sëriñ Sidi Muxtaar lay doon mi nga xam ne mooy kilifa liggéey bi jiite mbooloo mi ne ci suñu kanam mooy dañu di ko ñaanal bu baax suñu borom dëgëral ko dooleel ko wax dëgg yàlla liggéey bu rafet la àndeek mbooloo mi waaye bala moo ñëw nim fonke julli xam nga ko boo ko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp déglu ko taw di taw di taw di taw di taw ba fépp taa xelew foo jóg gi siyaan nit ñaa julil ci biir ngir fépp fépp dafa niir te taw bi daa bari yu tooy du tane yére yu ñuy xoyam ma nan jaamu rabbul alamin 78 muy ngelaw ba gisul fu mën aw ajuma jooje cey la xew naaj seelu ngelaw mi wisal nga seelu taw mbal kam yonen ba doo ca naan naajul tawul te ngelawul te sun borom daa leblewul fuñ noddatee nañu jubal ca julli ka suñu yam dëkk bi kenn la xamul mu wax na naa seet ilimaan ba mu ñëwee ba nuyu ko ba seet jëmmam ja sopp ko tax la yittee mu nëbbu ko seex jiili laaj dama jo nga sëgg yërëmu ngir lim badaa xawalimu téeméeri junni la bëggoon am na keroog ñu fa newoon naa kii li muy wax lu mu doon téeméeri junni laa bëggoon kii daa wérul sëñ bi ne kaccit daal di ne sëñ daam déglu leen sëñ daam lim bëgg moom kenn kudul sama boroom mënu la tee ma def ko moom tele sax ni jaaxle du am ci waa këram sëñ bi na talal ma ñaan wala nga toog baal xemes bu ñu demee tuubaali des ma la daay jeexalu sas lii ma la wax bu saan la waan waa ne ngan du yàgg ngoon xalif général des Mourides altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër sëriñ bi jàkkaarloo ak juma Touba asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk jullit yi mbokk ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Muntaxa màggalug Serigne Abdoul Khadr Mbacke ak mboolem jabootug Serigne Abdoul Khadr Mbacke ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggalug Serigne Abdoul Khadr Mbacke gi ñuy amal altine benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër Serigne Abdoul Khadr Mbacke jàkkarloo ak juma Touba muy bésub sant bés muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal diine lislaam daan dund di dundal sunna dundam yépp di jaamu yàlla muy sëriñ abdou xadr mbàkke ibnu cheikhul xadim quatrième xalif général des mourides ñu ñaan kuréelu xasida yi daara al yi jumaa yi jàkka yi 2022 17h ab table ronde ca kër Serigne Fallou Lo xalifa Serigne Makhtar Bintaloo ca Touba Soura le 25 juillet 17h ab table ronde ca kër Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau. gi soobe mboolem ñu ñu bokkal maam maram di ko yëgal cheikh yi taalibe yi di réew meeg bitim réew mboolem këru diine yi ci sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak sëriñ bi bés bangoog magal annuel sëriñ abdul xadr mbàkke quatrième xalif général di 2022 ca man donga Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifte fu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké xalifa Serigne Abdoul Khadir ak mboolem jabotuk Serigne Abdoul Khadir Serigne Moustapha Abdoul Khadir Mbacké jëwriñu Serigne Cheikh Mbacké Abdoul Khadir Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadir jiitu comité d'organisation màggaluk Serigne Abdoul Khadir Mbacké quatrième xalif général des Mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub nangu ñaan ni ko Serigne Moustapha Abdoul Khadr Mbacké di waxee at mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal an xasida ak salaatu ala bi ñu def ko addiya sëriñ bi programme bi ren ñaar fukki fan ak benn ci weeru dina ñu amal ab table ronde 17 heures ci kër sëriñ Fallou Mbacké xalifa sëriñ Oumar Mbacké 23 mille 2022. Mbacké jàkkaarloo ak jumaa ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacke Abdoul Khader ak mboolem membre comité d' organisation màggal gi ñu koy amal en direct TFM Touba TV ak Sen TV ñu di ko yëgal njabootuk Serigne Touba gépp Mbacke Mbusoobe mboolem ñu ñu bokkal mam Carlo ak Juma Touba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokku jullit yi mbokku talibe yi. ci ndigalu Serigne a Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. ci kilifteefu Serigne Cheikh Amadou Mbacké Mbàkke gi ñuy amal altine benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër Serigne Abdoul Khadr Mbàkke jàkkarloo ak juma Touba muy bésub sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imam yi quatrième xalif général des mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub jëm yëpp di yàlla muy Serigne Abdou Khadr Mbacké ibnu Cheikhul Khadim quatrième xalif général des Mourides ñuy ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan yi jumaa yi jàkka yi ak mbooleem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida ak salaatu ala bi ñu def ko addiya sëriñ bi le 25 juillet 17h ab table ronde ca kër Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau spécial ca kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak juma ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr ak mboolem membre comité. ñi wëllarante woon ak sëriñ bi bés bangoog magal annuel sëriñ Abdoul Khadr Mbacke quatrième xalif général des Mourides altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër sëriñ bi jàkkaarloo ak juma Touba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Xaadir Mbàkke jëwriñu Serigne Cheikh Mbàkke Abdoul Xaadir Serigne Sidi Mbàkke Abdoul Xaadir jiitu comité d'organisation màggaluk Serigne Abdoul Xaadir Mbàkke ak mboolem jabootuk Serigne Abdoul Xaadir Mbàkke ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggaluk Serigne gi ñuy amal altine benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër Serigne Abdoul Xaadir Mbàkke ak juma Touba muy bésub sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imam yi quatrième xalif général des mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub nangu ñaan ni ko Serigne Moustapha Abdoul mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal diine amu yàlla muy sëriñ abdou xadar mbàkke ibnu cheikhul xadim quatrième xalif général des mourides ñu ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan yi jumaa yi jàkka yi ak mbooleem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida ak salaatu ala nabi ñu def ko addiya sëriñ bi programme bi ren ñaar fukki fan ak benn ab table ronde ca kër Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau spécial ci kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak juma ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr ak mboolem membre comité d'organisation màggal gi ñu koy am Serigne Abdoul Khadr Mbacke quatrième xalif général des Mourides altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër Serigne bi jàkkaarloo ak juma Touba asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk jullit yi Abdoul Khader Serigne Sidi Mbacke Abdoul Khader jiitu comité d'organisation màggaluk Serigne Abdoul Khader Mbacke ak mboolem jabootuk Serigne Abdoul Khader Mbacke ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggaluk Serigne Abdoul Khader Mbacke gi ñuy amal altine benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër Serigne Abdoul Khader Mbacke jàkkarloo ak juma Touba muy bésub sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imam yi quatrième xalif général des mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal dundal diine lislaam daan dund di dundal sunna dundam yépp di jaamu yàlla muy sëriñ Abdou Khadr Mbacke ibnu Cheikhul Khadim quatrième xalif général des Mourides ñuy ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan yi jumaa yi jàkka yi ak mbooleem jullit yi lu nu mën table ronde ca kër Serigne Fallou Lo xalifa Serigne Makhtar Lo ca Touba Soura le 25 juillet 17h ab table ronde ca kër Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau spécial ca kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké réew mboolem këru diine yi ci Sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak sëriñ bi bés bangoog magal annuel sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke quatrième xalif général des Mourides altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër sëriñ bi Abdul Xaadir Mbàkke ak mboolem jabootug sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Moustapha Abdul Xaadir Mbàkke jëwriñu sëriñ Cheikh Mbàkke Abdul Xaadir sëriñ Sidi Mbàkke Abdul Xaadir njiitu comité d'organisation màggalug sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ak mboolem jabootug sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ñoo am mbégte di yëgle ka woote njëgal nangu ñaan ni ko Serigne Moustapha Abdoul Khadr Mbacke di waxee at mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal diine lislaam daan dund di dundal sunna dundam yépp di jaamu yàlla muy Serigne Abdoul Khadr juillet dinañu amal ab table ronde 17h ci kër Serigne Fallou Mbacké xalifa Serigne Oumar Mbacké 23 juillet 2022 17h ab table ronde ci kër Serigne Fallou Lo xalifa Serigne Makhtar Binta Lo ca Touba Soura le 25 juillet 17h ab table ronde ci kër Serigne bu TV ñu di ko yëgal njabootug Serigne Touba gépp Mbacke Mbusoobe mboolem ñu ñu bokkal Mam Maram di ko yëgal cheikh yi taalibe yi di réew meeg bitim réew mboolem këru diine yi ci Sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak Serigne bi bés bàngoog magal annuel Serigne Abdoul Khadr Mbacke quatrième xalif yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacke ak mboolem jabootug Serigne Abdoul Khadir Serigne Moustapha Abdoul Khadir Mbacke jëwriñu Serigne Cheikh Mbacke Abdoul Khadir Serigne Sidi Mbacke Abdoul Khadir njiitu comité d'organisation màggalug Serigne Abdoul Khadir Mbacke Karlo ak Juma Touba muy bés sant bésub fàliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imaam yi quatrième xalif général des mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub nangu ñaan ni ko sëriñ Moustapha Abdoul Khadr Mbacké di waxee at mu nekk nañu chargé sunu ba yi jàkka yi ak mboolem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida ak salaatu ala bi ñu def ko addiya sëriñ bi programme bi ren ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet dinañu amal ab table ronde 17 heures ci kër sëriñ Fàllu Mbàkke xalifa sëriñ Umar Mbàkke ab plateau spécial ci kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak juma ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr ak mboolem membre comité d'organisation maggal gi ñu koy amal en direct TFM Touba TV ak Sen TV ñu di ko yëgal njabootuk Serigne Touba gépp altine benn fan ci weeru ut 2022 ca kër bi jàkkaarloo ak juma Touba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou xalif général des Mourides yàlla fi yàgg njabootuk sëriñ Abdul Xadr Mbàkke ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggaluk sëriñ Abdul Xadr Mbàkke gi ñuy amal altine benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër sëriñ Abdul Xadr Mbàkke jàkkarloo ak juma Touba muy bésub sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imaam yi quatrième dundal sunna dundam yépp di jaamu yàlla muy sëriñ Abdou Khadr Mbacke ibnu Cheikhul Khadim quatrième xalif général des Mourides ñu ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan yi jumaa yi jàkka yi ak mbooleem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida ak ca kër Serigne Fallou Lo xalifa Serigne Makhtar Binta Lo ca Touba Soura le 25 juillet 17h ab table ronde kër Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau spécial ca kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo diine ci Sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak sëriñ bi bés bangoog magal annuel sëriñ Abdoul Khadr Mbacké quatrième xalif général des Mourides altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër sëriñ bi jàkkaarloo ak juma Touba Abdoul Khader Serigne Moustapha Abdoul Khader Mbacke jëwriñu Serigne Cheikh Mbacke Abdoul Khader Serigne Sidi Mbacke Abdoul Khader jiitu comité d'organisation màggaluk Serigne Abdoul Khader Mbacke ak mboolem jabootuk Serigne Abdoul Khader Mbacke ñoo am mbégte di yëgle ka woote màggaluk Serigne Abdoul Khader Mbacke gi ñuy amal Abdou Khadre Mbacké di waxee at mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés muy bésub al im akbar mi daan dund ak dundal diine lislaam daan dund di dundal sunna dundam yépp di jaamu yàlla muy sëriñ Abdou Khadre Mbacké ibnu Cheikhul Khadim ronde 17 heures ca kër Serigne Fallou Mbacké xalifa Serigne Oumar Mbacké 23 juillet 2022 17 heures ab table ronde ca kër Serigne Fallou Lo xalifa Serigne Makhtar Binta Lo ca Touba Soura le 25 juillet 17 heures ab table ronde ca kër Serigne si Mbacké Serigne Sidi Mbacké bu soobee mboolem ñu ñu bokkal mam maram di ko yëgal cheikh yi taalibe yi di réew meeg bitim réew mboolem këru diine yi ci Sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak sëriñ bi bés bàngoog magal annuel sëriñ Abdou Khadre Mbacké quatrième xalif général des Mourides altine benn fan kilifteefu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacke ak mboolem jabootug Serigne Abdoul Khadir Serigne Moustapha Abdoul Khadir Mbacke jëwriñu Serigne Cheikh Mbacke Abdoul Khadir Serigne Sidi Mbacke Abdoul Khadir njiitu comité d'organisation màggalug Serigne Abdoul Khadir ñoo am mbégte bét bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imaam yi quatrième xalif général des mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub nangu ñaan ni ko sëriñ Moustapha Abdoul Khadr Mbacke di waxee at mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida ak salaatu ala bi ñu def ko addiya sëriñ bi programme bi ren ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet dinañu amal ab table ronde 17 heures ci kër sëriñ Fallou Mbacké xalifa sëriñ Oumar Mbacké spécial ca kër Serigne Abdoul Khadr Mbacke ak juma ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacke Abdoul Khadr ak mboolem membre comité d'organisation magal gi ñu koy amal en direct TFM Touba ak Sen TV ñu di ko yëgal njabootu Serigne Touba gépp altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër sëriñ bi jàkkaarloo ak juma tuuba asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu comité d'organisation màggaluk Serigne Abdoul Khadr Mbacké ak mboolem jabootug Serigne Abdoul Khadr Mbacké ñoo am mbokk yi ginnaaw bu ñu joxee farata suñu borom bu bi nga xam ne boroom hakim xëy na fu mu mën a waxe fu ne nag fii la dëkk moom fii la defee lépp am na ci yoo xam ne nag danañ ci àgg waaye am na dañ ko bàyyi noonu tey sëñ Lamine bismillah fii moom gisee sëñ daaram am xelam dafa kon tey lu ma jaxase wala ma runge ko ngeen xam ne loola ko waral sëñ Abdou Khadir nag ci li wax ci sore ak tooñ mooy nim mu dëggoo woon ak ni mu dogoo woon yooyu laa bëgg a waxtaanee. doon ndogoom dogoom mooy lu muy def moom du yéexe ko benn yoon te ñàkk-ñàkkit jot bu dee jot mu def ko moom dafa waxoon mat Muhammadu Matbuhun doora dem siyaar ji yonneen loola baaxul nga xam ko moom sëriñ Abdou Khadir nii mu kenn la yàlla boor la kenn la yonneen noonu la def baay ba rekk moom juróom benn fukki at yu sëkk mànkiwul siyaare ci sëñ Tuubaa dogoom kenn du mel ni moom ci xam yàlla xam yonen te xam sëñ bi xiir ci ñoom ku kennal sëriñ Touba da ngay jéem a roy ci moom bari na ñaan dañoo kennal sëñ bi booy kennal sëñ bi lu sëñ bi yàlla na naddal ko jëpp moom mbakar fegu gii mooy lim siyaara sëriñ bi moom ku dul moom siyaarawul lu toll noona kenn du moom kon lii mooy dogu gi ma ñëw ci dëggu gi ñu soog a ñëw sëñ bi dëggu gi mooy li ñu doon wax ci ñàkk may tandi ko tooñ sëñ Abdou Khadir du tooñ du digle koy al jikkoom la ndaama bindam la daama di kàddi jiili tawxiid ju koo jul sunna su mejjul ak xol bu gàkkul kenn du ca jiili du takki gàllaaj ñaan ci xomb du sangu xamb diine la xamb moom Seyxu Jiili du takk ak fas du sarxe aw fas te jublu caa fas lenn di jiili du taaji njaq ñu di ko du xëy day may du able gàddoo ko tayle du jikko jiili duut xarum yar def ko ci biir kër foog ne da koy aar ci lenn jiili buy musu it cat du mocca kay jat du ñaan lu ngir bi muy aw wéet na ci jiili tawxiid ju sell sax ca ne cell ba jàll jàlle mi ngi woon ci jili allahuma sallim jërëjëf sëriñ Mouhamadou Lamine ñu jox kàddu gi sëriñ Sidi ngir mu tëj jataay bi waaye balaa booba euh, day sant ci turam ak ci ndigalam mbooleem këru tasukaay Touba TV ak Albishri TV rajo yi RTS ñëw na Walf ñëw Benno ak Touba Fall FM ñëpp ànd nañoo ak sëriñ bi ci jàllale jotaay yu am solo bii nga xam ne ñu ngi fi amal. salaatu wa salaamu ala man asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi leen di nuyu kenn ku nekk ci sant ñu leen nuyu ci turu njabootuk sëriñ Abdou Khadre gépp tàmbali ko sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñam ak Cheikh Amadou Fadel ak mboolem seeni rakk nuyu bi ñu jiital ko jëme ko ci ñu naa beggale ko canu ànd ko moom ñu ngi koy sant bu baax ci taxawu gi nga xam ne mi ngi koy taxawu njabootu Serigne Touba gi di ko taxawu yoonu murid bi rawati nag kër Serigne Abdou gi wala ñu ñu mbokkal ci wet anam yépp nag ci waajur jigéen ak waajuru góor ñu ngi sant ñëpp ñëpp xam nañ ne bis seen bisa ba ñëpp ñu ngi ciy jàpp di ko ànd ak ñun dinu ci tax dikki na ci jamonoom ku xam na ne fii àdduna toll Sénégal bokk ci tooñ bi bari na lool te léegi dañ lay tooñ ba noppi ku tooñ li ko li ko sunu borom dikk ku ko xam boo déggee wax ji boo dee boo daa tooñ da nga ko moytu boo ko defutoo dem da ko da kon nag waxtaan wi am na solo dikk na musiba noonu ngeen ko tàqalee ñu bari xàmmewuñ ko lu dul dëgg moom kenn du mu darante hmm. loo xam ne nag islaam waxo ca dara moom gërëm bu baax moom yéen ñi ko daan def appelewuñ leen si wax ku ne sëriñ Asan moom moo jàngal sëriñ Abdou Xaadir ko sëñ Mbàkke jàngalee tuuri sëñ Asan la ko boolee loon moom la àndal dem Màkka ba def fa kon kooku bu doomam dee wax ci moom yaakaar naa ne xam na ci moom lu wér sëñ Saad bi itam waajuram sëñ Abdourahmaan Imaam diggante ma sëñ Abdu Xaadir duñ kenn taxawaay ngeen taxawaay boo xam ne mën na sëkk ba ku ku ko dégg rek xam na ne ñii li wax xam nañ ko sa mën nañ koo joxe ba nit ñi jariñ ci ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm sëñ Mbacke Abdourahmane mi moom itam kaddu gi waaye moo war moo moo waroon jël kaddu gi ñu koy gërëm bu baax di ko sant bu baax waaye ñoom sax ci wóoruma leen gërëm ndax li ma ci doon lañ ci doon ñu ngi gërëm bu baax nag barab yi nga xam ne jaar nañ fa ndax xam ngeen ne tey sëñ beeg sëñ Omar ndax moom itam digganteem sëñ Abdou Khadir ku xam sëñ Abdou Khadir xam nga sëriñ Omar dama daal bu masaa sëñ bi sëñ Abdou Khadir bu dem fenn yéen ñi ngi dëkkal moom du leen ko wax mukk ci àdduna loolu tax fu mu masaa jëm ànd ak ñoom kon nag loolu lañ ci doon taamu ci yóbbu ko kër suñu Amar waaye suñu Faliilu itam taxawaay na taxawaay bu rafet waxtaan bu am na solo lool bari na yam fan def itam suñ mbokk mos bi fa nekkoon yëpp keroog wóolu woon na ko doyloo ko mu doon secrétaire di ko bindloo lu ko ñor lu ne moom itam mu ne mun diggante ma waa kër Sëriñ Tuubaa yëpp rafetoon lool waaye Sëriñ falu moom itam nag yàlla def mu mu doon ab cëram ci gépp ñëw nañ ànd kook ñun taxaw fa taxawaayu rafet def fa waxtaan wu rafet Abdou Jili Mbàkke def ko fa moom suñ Fallu ci Sëñ Abdou Xaadir muy wax wax ju am solo ñu waxtaan fa itam ci Sëñ Matar Binta ñu ñu tëjee tey jii rek fii ci kër Serigne Abdou Khadir tabaarkalla tey nag moom jataay bi tabaarkalla bi mooy bu ñu doon wax mooy moo moo tëj jataay waaye nag am na solo lool. kàttan dëgg sat ne wicc dara lu lënt néew ja kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di sant mbooleem fi nga xam ne demoon nañ fa daal di fa waajalee màggal gi ni war a jëm xam ngeen xat-xat yi bari na ak jamono ji waaye saa bu nu waree dem waxtaan ñëppay bàyyi seen itte ñëw ñu àndandoo dem fekkee ñooña ba waxtaan wa egg ñu soog a delluwaat kon nag ñu sant. mu ci magal gi ñu bàyyi seen itte ànd koog ñun ba ba mat sëkk. kon nag ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm bu baax a baax képp koo xam ne ànd nga ci liggéey bi rek baa nga jàppoon ci rek xamal ne Serigne Cheikh Mbacke yëg na ne moo bu bu ne ñu xeeb ko kon nag loolu moom lañ doon sante mu ndax lii lii nga xam ne ñu ngi koy def lu am solo la ndax dana tax ñu xam dëgg-dëgg Sëriñ muy bis bi nga xam ne ci la Cheikh Abdou Khadr Mbacké gane woon àdduna te Serigne Touba waxoon ci wax jurëjë ci sunu maam Thierno ñu bis boo xam ne bis bu njëgal la bisu ngoreel la bisu xéewal képp koo xam ne mën ngaa jàng alxuraan ba ma nga jàng xasida buñ ci eggee fii ci kër gi inshallah dana si yendoo jàng yendu fee def ay berne ñu ngi sant bu baax moo tax ba li ñuy def ñoom duñ ci gis dara nun ko doxalee rek mu rafet ci ñoom jekk ci ñoom kon nag ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax di gën a soññ nit ñi rek ci waxtaan yi liñ ci liñ ci doon jub lépp mooy nga nga bàyyi ngir daw responsabilité te yonent bi wax ne kullukum raaxin wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi fekkoon loolu ñëpp téye nañ ko rek li xew dara du xew mag ñi kat li li leen dimbale ba seenu njaboot rëccu leen fu ne ñi nga xam ne ñu ngi jox nga jox nga jox nga seen doom ñi jàng sax buñ la ko joxee génnante seen yoon du ci nekkati xanaa mu wéré di mbaa daara dal ko moo boobaa nag moom ñëpp ñëw taxawal mooy jàng ak tërbiya ndax fi ne jàng baax na lool waaye yar nag moo ëpp solo danga koy dégg ñu ñu ne si ma sàmbkan waxoon na ko yóbbu si ndaam ne toroxal mukk xam-xam na man nga xam ne fu ñu toroxal la xam boo ñàkk bi yar kon nag nañ ko góorluwaat ci yar bi ca bañ a yàkkamti suñu gone yi léegi nit ñi dañuy yàkkamti lool bu la joxee gone teraanga jàng nag moom mooy li nga xam ne boo ko defee faw nga nga xam-xam moom liggéey nag moom taxut a taxut am xaalis taxut am alal kon nag li nga xam ne moom ci day day day day wéy buñ bëgg ñu ngi jeexale wax ji rek ci soññaat suñu mbokk taalibe yi ñu gën a góorlu ci taalibe gën a góorgóorlu ci topp ndigal sëriñ bi ni kàddu yi sëriñ bi jotale woon léegi rek ndax sëñ moom am njàngaleem ak yaram wesuut lislaam wesuut lislaam dafa am sama mbokk mbaax moo xam ne sama xarit waa sëñ bi na ko man doomu jullit jaaxle lool mun leen du fekkee mbokk ju mbokk ju de ngeen di wër seet leen keneen man murid murid la mbokk murid la ñu koy wax mu ne waaw xam nga murid moom jullit moom mën naa mën na murid yoo xam ne xamul Sëriñ Tuubaa jullit yoo xam ne kon nekk jullit te boo ko defee da ngay wax Tuubaa kon nag ñun nañ jàpp suñ murid googu bu baax a baax te góorgóorlu ci sàmmale sëriñ bi nag lim bëggoon te yi te di ko moytul lim bañoon te xam ne lakk ko def ndénkaanal suñu borom ba faw te bi mu koy sanc dëkk bi jàng jàngale ak yar moo ko taxoon mu sanc ko leneen lu fi dikk rek da cay yokk waaye looloo taxoon ma ñëw fi ko moo xawoon fa yii yëpp yàlla def na sama leen mi nga wàññi ko muy karawaan yi nga xam ne moo daa am ci dëkk bii di wër jumaa ji oto yu bari di corne teg wax joo xam ne wax ji amul kenn amul foofu la nekkoon ndekete bëggoon na ku yéen ko waxal kon nag ñi koy ñi ko doon def nan xam ne ñi doon def xam ne neexut murit yi dañ ci amutoon dañ ci amutoon pexe rek ay neexu leen ñi nga xam ne kenn teewu fi politique waaye nag nan ko defee dëkk bi spécial la léppam spécial la brigade spécial la am commissaire spécial la am léppam spécial noonu nag lañ war a tey ñaan yàlla sëriñ bi nga xam ne mooy suñ kilifa ñun ñëpp itam mu joxe ci ndigal ba nga xam ne loolu moom daana fi jeex ren ji ba fa ne ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gë wàcc ci bis bi ñu ngi sant nag ñi nga xam ne liggéey bi bu tàmbalee rek ñoom dañuy daal dugal seeni loxo ci liggéey bi ñuy sunu mbokk yee nekk ci Italie sa Sànq ji leen di gërëm di leen sant di sant koo xam ne tam sunu doom la muy Abdou Karim Faxana moom it at mu jot dana jéem dana bokk ci jullit màggal gi ne daa bëgg lu mu ciy def ñu ko ci tàppal di sant bu baax itam ñoom itam ren teel na noo tàmbali seenu liggéey ba mu ci ñoom ak waa fédération Touba moom xam naa yéen yéen nga wàcc maa ngi leen di seen tur rawatina nag sama turandoo yi nga xam ne moom waaw kay sëriñ bi xam naa balaa sëriñ bee ñaan ñu fàttali mbokk yi rek bokk na fi ñi fi teewoon di jàllale kàddu yi UCAB FM ndax buñ mënee dox doxin rafet ci set jiit la ak sa taxawaay sëriñ Cheikh mi la wóolu ba teg la teg sa loxo ci liggéey bi wax dëgg yàlla ñun ñi koy ànd yow xam nañ ne la ci war lépp yaa ko ci def ba di ci toggoo na lu am solo loo xam ne dénkaan yi ñu war a bàyyi xel la fàttaliku ko ñun ñëpp kon loolu it mbokk yi dañ ko bàyyi xel kilifa li liñ koy doyee mooy bu wax jotee mu wax ak nit ñi fàttali lañu war mooy dëkk bi fàttali lañu koy sëñ Tuubaa fàttali ñu ab murid ci daraja jullit mooy murid man ngaa doon murid bu simple nag di dëngale ko jubal waaye murid tigi moom day day jubal kese te du dëngal moo tax mbokk mi ne ko morit la waaye du ma jullit mooy du ma jullit kese waaye jullit mat la loolu lu am solo la loolu nag ñun ñëpp foofu la war a nekk. da xam fooy teg sa tànk yëngu bu ñëwit da nga xam foo ci jaar. kon ñu ngi ñaan bu baax di seeral loolu di ko seeral sëriñ Cheikh ne taxawaay bi rafet na moom yow xay na jàpp nga ne dala ko bàyyi doy la ci waaye nag li ñu liñ gëm mooy mate goo ko mate sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imaam yi quatrième xalif général